موم يالله سوني بروم سبحانه وتعالى اك يوننتم بي مو نيو غنا نيه لنين لودو نيوم نيار بو نيارل با وان يحب المرء لا يحبه الا لله نياريلي بونت بي موي موسي نيهاي گم يالله موي مو ام نيت ولا مبوكام مو خامني ولا دومي ادمه جو خامني داف كو بڬ te nam ko bëggee mooy lu mu buggal boppam loolu la buggal kooku lépp lu mu buggal boppam mu buggal ko kooka ngir ne daf ko bëgg ngir yàlla bëggut ko ngir xaalisam bëggut ko ngir taaram bëggut ko ngir bari dugalanteem bëggut ko ngir mun a yaxantoom bëggut ko ngir place waaye daf ko bëgg ngir yàlla daf ko bugg ngir yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ku bugg nit te buggul ko ngir lenn lut ngir yàlla kooka am na bunti mos neexaayi gëm yàlla bunte bu diis la de wax naa léegi dinaa waxaat ne taxaw ci kaw minbar wax ko yomb na waaye nga buggal keneen li nga buggal sa bopp te mooy nga bugg ko ngir yàlla loolu lu doomi aadama yi war a fexe def ko ci seen xol yi la buñ ko defee rek dinga gis dund gi yomb dinga gis jàmm gëna tasaaroo yomb yomb yomb wàcc suñ ko loolu la yàlla di wax ci yeneen aaya ci suuratul aaraaf ak yeneen aaya ne ndaxam bu ngeen gëmoon yàlla ni ngeen ko war a gëmee téere bi li ci ne ni ngeen ko war a gëmee soo leen ko gëmee woon yàlla dana leen tawal seen wërsëg di leen dundal di ko wàccee ci ko asamaan ni muy tawee ndox <coughs> noonu la lay tawalee sa wërsëg ak looy lekk ak looy jëfandikoo li tax yàlla defu ko nag mooy ne gëmuñ ko niñ ko war a gëmee waaye mu ne buñ ko gëmee niñ ko war a gëmee moom yàlla danañu wàccee lu ñuy jëfandikoo ci kaw suuf ni muy wàccee taw yow boo xoolee taw nga xam ne yàlla moo bari kàttan <coughs> kum mun a doon ku ne nga amub dëkk ñu ne la dëkk bi soxlawuñ sax tool yu nekk ca àll ba tool yu sori yi soxlawuñ ko <coughs> waaye tool yi nga xam ne ñoo jege kër gi fexeel ba nga suuxat ko di ko taw waxtu ne ba mu tooy ndax ñu mun a béy gerte alkaali buñ santoon ne yaa ñuy suuxal li ñu wër suñ tool yu jege kër gi yaa koy suuxal yaa ñu koy suuxal ndax ñu béy mboq ñaari weer rek mu ñor dana delloo alkaali yàgg ñaata junni kilomètre la yàlla di tooyal subhanahu wa taala kon xam ne yàlla du morom yàlla moomu le nga bugg doomi aadama bi ngir moom nee na loolu bunte la boo xam ne di nga ci jaar nga jot neexaayi gëm yàlla subhanahu wa taala nee na ñetteeli gëm yàlla ñetteeli bunte bi mooy wa an yakraha an yauda fi l kufri kama yakrahu an yuqdafa fi nnaar baada an kaana fi l islam mu bañ a dugg safara gannaaw goo xamee ne yàlla teg na ko ci yoonu lislaam mooy mu bañ a def mooy yàlla bu mooy yàlla gannaaw boo xamee ne yàlla teg na ko ci yoonu njub bu mu gannaaw boo xamee yàlla teg na ko ci yoonu lislaam bu bon gannaaw boo xamee ne baax na gannaaw bu gisee leer bu dugg ci lëndam loola yépp mu bañ di oy ta pour lu ne safan ba nga xamne ne baaxut na muy moytoo bum ci dugg mu ragale ko comme ni muy ragale lalé safara mu ne su tolloo fofa ñet yef yi yeb ben mu ne mu taxaw ca koka nak door na di mos neexiti gem yalla ni mel yalla ko yalla wasagal ñu baamtu ko ngir nit ñi fatale ko ndax ñu jema xam neexiti gem yalla yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ñet yëf ku ca ne da nga mos neexiti gem yalla bu njëkk ba mooy yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañ la gënal lu ne sa bopp sax ñaareel ba mooy mu bugg doomi aadama buggut ko lu dul ngir yàlla subhaanahu wa taala ñetteel ba mooy mu ottandiku lépp lu bon ni muy wattandikoo safara foog naa ne leer na li ci des rek mooy ñu ñaan yàlla su borom subhaanahu wa taala tawfiq yàlla ñu ko yàlla defal ngir ñu mën a sobbu ci yoon wi يونتي بي الله عليه وسلم تي بنن حديث انا سولو نكو جيلي جيموم جي موم من لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه دا خام گم يالاغي دو مات موك دو مات سك ديديت فاك nga xamne nit مبكم جلتم ولا julitam مبكم نتم mbokam nitam lu ndaxam boo ko tënkee ci sa mbokkum jullit sax wér na waaye la gën a yaatu mooy nga buggal ko sa mbokkum doomi aadama ndax jullit bu ne war naa éene mbokkum doomi aadama mi nga xam ne du jullit mu doon jullit ngir lim xam ci diineem bon na buggal boppam wala na buggal mbokkam lim buggal boppam su ko defee boobaa la ngëmam di door a mat nag sëkk bon ngëm gu mat sëkk itam aaju na ci xol bi set nga buggal sa mbokk li nga buggal sa bopp ngëm yàlla mii wax la ju ñuy wax ak làmmiñ doon lu ñuy fas ci xol doon lu ñuy jëf ak ay cër moo tax ndaxam yi ñuy jëf ak ay cër bokk na ca julli yàlla suñ borom subhaanahu wa taala tuddee na ko gëm yàlla moo tax ba nga xamee ne soppil na waa Makka seen jubluwaay ba soppil waa Medina seen jubluwaay waaye mu soppil jullit ñi ca waxtu woowu yépp seen julliwaay ñu doonoon nit ñoo xam ne dañuy julli di jublu baytil maqdis mu soppil leen ko ne leen julli leen jublu ci kaaba gi am na ñu yaakaaroon ne soppi julli jële ko baytil maqdis yóbbu ko ci kaaba gi dafay tax li nga julli woon balaa soppeeku gi du am loola ñàkk nga ko loola neen la yàlla ne déedéet wa ma kaana allahu li yudi'a imaanakum yàlla du sank seen gëm yàlla ga ngeen amoon du sank seen julli ya ngeen doon julli te di ko yokkee seen jaamu yàlla yàlla du ko sank mukk bon jullitam yàlla ooyee na ko imaan ooyee ko gëm yàlla yàlla ne déedéet bu leen foog ne bàyyi ga ngeen bàyyi fa ngeen doon jublu jublu feneen fu ees la ngeen njëkkoon a def yàqu na la ngeen njëkkoon a def baaxut mu ne bu leen ko foog mukk ndaxam lii ñun jullit yi tey danañ ci jàngee lu baree baree bari su fekkee ne ñu ngi jàng alquran te fas yéenee jëriñoo ko ñu ngi jàng alquran te fas yéenee taxaw ci bunti mos neexaayi gëm yàlla bari na doomi aadama joo xam ne boo ñëwee ne ko sëñ bi nii ngay defee du nii nii ngay defee du sunna sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy nangam mu ne la ba ma ci suma dund gi yëpp ci lii laa ko def lam yaakaar mooy lam def dundam ga ba keroog bu ko baxee ñàkk na loola yëpp déedéet yàllaa ngi nii wax ñi doon jublu baytil maqdis ne wa ma kaana allahu li yudia imaanakum